Euh, président de l'association Gordal comme Dernier pour la promotion et le développement des langues nationales spécialement de la langue pulaar bon tey de Nous si bërëb bi l'alphabétisation alphabétisation euh, langue nationale Moi, kàddu actuellement Sénégal 25 ngi langues cadre yoo xam ne ministère bi codifié neen mais ba léegi am na blocage amoon na ay rencontre yu ñu defoon Thiès tey ñu ñëwaat fii pour xool nu ñu koy tënkee pour xool ëllëg si biir lan la ñu def pour financer si langue nationale commencé nañ di ko jàngale si école primaire mais ba léegi des na les acteurs nag ñëw nañ mais sentir nañ ba léegi boo xoolee euh, presque tubaab yi di wax éternel recommencement daa mel na lu ñuy defoon ñu ngi koy defaat parce que mënuñuy avancer fekkee wax duñu wax suñu kàll duñu wax suñu langue actuellement gis nga ñu ngi wax wolof euh, am na koo xam ne déggul français moo ngi déglu rajo moo ngi dégg télévision day am changement de comportement day am impact boo gisee réew yu avancé yëpp seen langue la ñu boo demee Japon boo demee Chine boo demee Danemark danois rek la ñuy wax si monde bi yaa fa Danemark rek mu am boo demee Hollande ñin ba léegi dañuy wax dañuy xalaat si français dañuy bind si français donc boo xoolee école primaire rek xale bu def 6 ans boo ko waxaloon wolof wala pulaar 2 ans rek day comprendre boo ko waxee problème maman va au marché sa yaay dem na jënd na yàqu def na ni day gën a donc c' est ça loolu mooy dañ war a lu ñuy wax dina bañ a nekk des théories nañ ko tënk mu nekk dëgg ñi mun a avancer et acteurs yi am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñu def école tey boo buggee jàng wolof boo jugee jàng pulaar wala soninke langue bu nekk fekk am na fi ay classe tey lu gën a yéemu mooy da nga gis tubaab bu jóge fële bitim réew mu ne dama bugg jàng pulaar wala dama bugg jàng soninke mais du gis fii sax si Dakar en tant que capitale yenn école de d' alphabétisation moo acteur yi ñu ñëwaat tey ak ministre bi ñu ngi koy félicité pour ñu xoolaat tënkaat affaire yi ban démarche lañ def ban orientation lañ def ban orientation ak directrice des langues nationales vraiment moom aussi taxaw na sit ak euh, suñu màgg Bokar Gorbal si mu ngi def lu am lu baax donc lu ñu jàpp surtout les journalistes aussi parce que mënoo nekk moi je suis journaliste mënoo nekk journal nga di journal bu toll na Le Soleil xam nga bind en wolof mu am foot wala mu bind en pulaar mu am faute xam nga loolu warul nekk donc suñu rédaction yi sax dañoo war a bind booy def journal en français nga bind en wolof nga bind wolof en pulaar nga bind wolof mais dañuy bind si français nga def journal donc ça aussi euh, c'est nous les acteurs qui avons ne développement bi communication nous devons comprendre parce que langue nous mënul développer sans la communication. langue, nga jàpp blocage blocage c'est les orientations politiques à chaque fois dañuy changer parce que depuis des années il n'y a même pas un ministère plein de langue nationale amul direction la il faut ñu jox langue nationale et gëdd am les acteurs de développement am na ñoo fin du mois et 40 000, 30 000 en fait. Les gens sont en train de se faire gagnent les wolofs, ils gagnent les Donc yo, yo, il faut un accompagnement. Parce que si on fait une nouvelle, technologie, il n'y une nouvelle technologie parce que y a des gens qui ont été harmonisés, une langue nationale, un clavier, les gens sont débrouillés par un clavier poulard, un clavier anglais. Mais euh, euh, c'est rire, mais loolu yëpp lu ñu war a jàng ay ingénieur en mathématique ak yëpp am nañu ko commencé def en pulaar en séeréer dañ ko jàngale université université benn modèle ngay def choisir pulaar wala séeréer nga bàyyi ko donc peut développer tant qu'on pense anglais ou français. Pour recommandation bon recommandation du management acteur il y aura a un atelier au sortie de l'atelier il y aura un un rapport global qui sera remis au ministre de l'éducation qui va le remettre au président de la République.